ñu ànd ci ak El Hadj Ahmed Aïdara bismillah askan wi mere nañu lool kilifa yi nga xam ne kon ñoo jiite réew mi tey direct info la sabab lu ni mel mooy ba ñu déggee ne kon gaz bi kat dañu koy yokk ci jamono joo xam ne yow programme yoonu yokk ca googe nga xam ne sénégalais kon dañ cee amoon yaakaar bay bëgg a dee ca la ñu jekki-jekki xamal leen ne kon gaz bi dañu koy yokk ca banlieue ba jafe na lool ngir ñi nga xam ne kon ñoom ñoo jiite kër ya ñi ngi mel ni sax maanaam kon lu ko gëmul waaw seen yaakaar googan bi na géej daal dinay daanu tas Abdoulaye Ndiaye ne yokk gi nga xam ne kon ni mi ko nañ ko nag maanaam ci ñëg yi la mu war a àndal daal mooy yokk ay salaire gouvernement bi ci boppam daa war a xam ne ñu gën a bëri ci sénégalais yàpp ay débrouillard lañ dañuy dëbbal dëbbal di góorgóorlu sonn nañu ci réew moo xam ne yow saay boo xëyee muy gën di tar ni tiir ay bàmmeel kii ci direct info ne yoonu yokk gi nga xam ne kon moom la président Macky Sall mës kon di tiitaroo daa defagul kon lu war a mën a tax ñu ne yoonu yokkute yoonu yokkuteem googee la ñu gisagul président Macky Sall ci boppam fa ko doon xaar ba léegi ni le kon daa génnul foo gi mu daal ni ñol moom nga demande sociale bi waaye yow booy xool ba ci biir ba ñu falee Macky Sall ak léegi ni le saa yi bu ñu xëyee kon mbir mi di gën a taax termine yéene kaay ne fatar kay dara doxatu fa ah mooy ca biir inspecteur ak contrôle de Dakar ñoom daal la naqarlu kon mooy salte bi nga xam ne kon mi ngi seen biir màkkaan googe ca inspection régionale du travail di jaaba jonge yéene gi ne xëj na nag kilifa yu bees yi nga xam ne kon ñoom la ñu fal nii nga xam ne wàllum la ñuy wax la woon dana woon ni la woon woon ni na bi Abdoulaye Wade demee ak na leen bàyyi xel waaye est koy kon am na Modou Fall bu APR ne déedéet ci tribune yéene kaay Modou Fall kat moo jiite élève ak étudiants yu APR ci anu Ndakaaru gii waa ji Fall ne kilifay APR yi waaw ñoom daal ñi ngi commencé nag di arrogant commencé yëg seen bopp ab ngama di goo xam ne kon maar deytaali Modou Fall ne dama ne kilifay APR yi maanaam ñi ngi commencé kon di yëg seen bopp ak di ko wan nag askanu Sénégal gi lée parce que man damaa mënul comprendre lan mooy ndayu yow nga nekk kenn mënatul àteg bët nga changé numéro changé lépp te loolee nga ab ngamati yëg sa bopp arrogance moo fi jëlee kon nguur gi nga xam ni kon moo fi nekkoon le populaire ne guerre baa ngi mel ni kon tulleeg man ci biir parti wu Macky ba ah waaw waaw parce que xoolal ma Mbaye Ndiaye taxawal na genn kuréel boo xam ne kon mi nga njaboote yenn ci ay jàngalekat ci daara kawe ak daara yu diggu dóom ah ngir xeex yu suturé rek ngoor fay ne c'est pas vrai kuréel gii kay xeex yu suturé taxu koo jóg de waa APR bu ñu la ñu yëkkati jaglelee ko kon kii di Moustapha Diakhaté c'est pas vrai c'est faux loolee ñu def yëpp teguñu ko fenn du dëgg déet waay Keita saaliw ne en ah kay parce que yow mën ngaa tuumal Moustapha Diakhaté lu ne ba mu des ne moom daal ba mu faloo la soppeeku Moustapha Diakhaté parcours politique am ñëpp nañ ci seen bët la mu doon xeex rawatina ci biir parti démocratique sénégalais ñëpp teg nañ ci seen bët lan nit ñi teg seen bët nag mooy building administratif bee boo sàgganee musiba nga xam ne adduna yëpp fa la ñuy daje lu ci tolloog juróom benn ci ay ministre bu woon ak sapeur pompier yi kon heure bi maara day ay minute minute la ñu paan kon ci ascenseur premier ministre ba dégg te building doo ñetti ci ay ascenseur la ñu woon kon askan wi la ñu cee yéeg ak a wàcc ascenseur yooyee ñoo doon faral di paan ñeenteelu ascenseur ba fi mu nekk nii 2011 ba léegi kon doxatul dégg waaye mbir ma nag fi mu nekk nii la kon gën naa doy waar gën naa garaaw yi nga xam ni kon moom la ñu jaglelee woon ministre yi ak premier ministre mësta am kon commencé nag léegi di paan allahu akbar laa ilaha illa allah ba altine ji ñu génn kon juróom-benn ci ay ministre ñoo fa cam bu dul woon kon heure bii laa ilaha illa allah oh yéen a kaay gi ne lii raam daal ca ñag wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn bombe à retardement la mën naa tàkk saa su ne parce que ñëpp xam nañ ne building ngoo kee fa nit ñi kon di gën a fréquenté di gën a dem sénégalais yi ak ya nekk ca bitim réew la ko sabab nag mooy la gën a bëri ca ministère yëpp ca état boobee la ne fa nit ña nekkaat kay mooy Thiès tribune yéen a kaay ne ay avocat u Cheikh Béthio day dellu siwaat nañu ngir Cheikh bi ñu may ko kon ab bàyyib nëgandiku liberté provisoire tey Cheikh bi Cheikh atte nañ ko nii jaarul ca yoon te mosuma xalaat nag xaru man Cheikh Yérim lan moo tax nag ñu mënote ko le populaire ne mënoot yoo jee moo tax kon ba Cheikh Yérim Seck aalu kon démb ca tribunal ba tribune yéene kay ne Cheikh Yérim day fee mu ne day julli di bind ak it am yaakaar ba léegi ni lee le pays au quotidien ne yaakaaram gi day war na fee gën a mën a yokk ah waaw waaw parce que am na ci ay kilifa diine yoo xam ne fi mu nekk ni ñu ngi liggéey ngir Cheikh Yérim Seck ñu génnee ko kon fa mu ne te kilifa diine yoo yee bokk na ca Serigne Mansour Sy bu Dabaax Malick El Hadji Mansour Mbaye Cheikh Ousmane Diagne yaakaar juddu fa fa yaakaar tas mooy ca banlieue ba réew mi quotidien ne ñoom ñoo ñee dañuy toog kon ay daal moo tax kon ba ñu wane kon seenuk mer mer yaakaaroon ne diggée yi nga xam ne kon ñoom Macky Sall diggée woon nañ ko ci autorité yu bees yi ne courant bi moom danañu ko saafara dootoo leen déggati mukk xuy-xuy xamaj-xamaj ah ba léegi ni le kon gaañaa nga ca comico benn baraak caarooy leew na jànkalaar Chicago ak yeneeni gox bokk nañu ci tund yoo xam ne kon maanaam dañuy toog kon ay waxtu duñu gis luy nuroo courant Lamine Ndiaye tailleur la ne lu lumb kon la ñuy toog ñu gis luy nuroo courant duñu liggéey dégg te lu nu mel ne kenn mënu caa dundati suñu activité yi taxaw na liggéeyatuñu ay satali kon baaraamuk tuuma kilifa yii nga xam ne kon ñoo fi ne te jamono joo ñu ci bëree bëri la ñuy laajte fi mu nekk ni le mooy est-ce que dund sax bañ ne courant léegi dootul coupeeti Sénégal njaay gii Sud Quotidien ne juróom benn weer ginnaaw kon ba ñu fa lay Macky Sall la woon day ba léegi ni la wunneegul wala lëndëm na le populaire ne bu dee député yu bees yi wala ña fi nekkoon d'accord nañu ci dogalu président Macky Sall jëndaat téeméer ak juróom fukk ci ay oto lu ni mel Birahim Seck bu forom civil nekku ca d'accord ci Birahim Seck ne Macky Sall ci neex naqari daa war a récupérer oto yi nga xam ne maanaam ñoo fi nekkoon par force le président Macky est dans l'obligation neex naqari la da koo war a jëli parce que loolee kon alalu askan wi la patrimoine de l'État la oto yoo yaye askan kon alal joojee daa war a dellu siwaat kon pour di may ay oto ku ko neex dégg nga lii alalu askan wi la pour muy leer dem naa ca lamb ja laas ne Balla Gaye 2 tey lay wuju ca kanamu tribunal ba de i ndax fan sa ama seen bopp eh? Balla Gaye 2 dooroon mu yow suñu laa mu ne Gris Bordeaux day mbaru faas yëpp la convoqué tey jii ah ginnaaw coow la fa juddu la te boo sàgganee nag gis nga ndaje moomee tey ci suba gi ah mar tey nees yaay sama xarit bu ma jëndee ginaar may la pooj yaay sama xarit kookoy nees nee na bu jàkkaarloo ak Gris Bordeaux day dóor giri giri toog i kaawoo fan la ñuy daje ñi nar a daje kay mooy Balla Gaye ak Modou Lo i maa la ko wax du ba lees ci yéene kaay gi ne lig Nicolas dee li mu fi mu nekk nii mooy sama doom ji di Balla Gaye numéro 2 daje kon ak Modou Lo mais <laughs> allahu akbar jamono juñ toll nii moom lu ma waay fay ma sëkk bëri bàyyi woon naa waay dellu soit naa barki rasuulaay xaru tabaski oblige ganilaa oblige ay marakis oblige alaaji bu ma ko lijjantiwul du baax lu ko mooy la ma fi waxoon laay mujj def gàcce topp ma redoubler cuub sama yére bi ba muy nes nesi tàppaat ko dóor ba mu ne ok ma ñëw tolloo ak ñoom alaaji